2024 Kane na yor réewum Sénégal ni muy doxalee nii na bàyyi xel ne 2024 bu Kane yoree réewum Sénégal naka la mën a doxee yëkkati kàddu di àddu ci mbirum njiital Pastef Ousmane Sonko gannaaw siis bi nga xamante ci ni mooy Ousmane Racine Thion dal dinay génne ab ordonnance buy wane ne Ousmane Sonko atte bu ñu ko mën a attewaat waaye loolee weesu na maanaam gisuñu dara loo xam ne mooy mën a gàllankoor candidature waaye nag maître Ciré Clédor ñu laaj ko ci ne lu tax sénégalais yi am benn taxawaay bu ñu am maanaam buñ mosaan àtte wala ñu ne dañuy jàpp Ousmane Sonko dañuy génn ci réewum Sénégal waaye nag Dakar Ndiaye sax fa lay gën a ëppee ngir di manifester wu te tey ji amul mu ne ndaw ñi ni ñuy xeexee tey mooy dañuy xoos seeni carte d'identité bàyyi ba atum 2024 le 25 février ñu indi ki leen doy muy Ousmane Sonko loole rek la ñu leen digal te ñoom ca la ñu tënku kàddu yi maître Ciré Clédor li